ultime maanaam nag bañucu ci dara bu ñu sukkandikoo rek ci tukka yëglekaay bi nee na nag gatsa gatsa bi dañu koy téye boo bakk léegi nangu na nag lépp loo xamante ni daal moom moo koy may jàmm dana xeex nag ba fa dooleem yem loole mooy kàddu yamu daal de yëkkati Ousmane Sonko nag nee na nangu na ñàkk lépp ci kanamu njiitu réew bi Macky Sall waaye eh, ndege ni tey wala bokk fii ak suba moom daañu rek dellu siwaat fi nga xamante ne ni eh, moom mooy ci dakaar ngir nag eh, fësal li nga xamante ni daal moom mooy seen jéego jàpp na rek jamono ji ab dossier politique nag ci làngu ko politique yi la ñu koy eh, réglé kon nag jàpp na rek ni yëf yi eh, ñu ngi ci njeextalu ko bi lekk projet ngir nag fësal bu baax a baax seen bëgg-bëgg Ousmane Sonko eh, mu ngi rek waxtaanee seen xeex ci njeextal li fii ci Dakar ba noppi rek di artu bokk na ci li ñu nga xam ne mënees nañu ko jàpp ci ëttuk yëglekaay bi Vox Populi yéenekaay moom la mu xëyee bokk na ci dàll ëllëgu ko bi lekk procès jàpp daal ne Ousmane Sonko nag ma nga ca cokki fin maanaam nag xeex bu ca mujj jàppale ne loolee digganteem ak nag njiitu dal la Macky Sall moom moome bàyyeetu leen benn tànneef moom dafay dellu ginnaaw wala bokk ñoom ñooñee ñu jëlee ko ca pale ba bokk na ci nag kàddu ya nga xam ne daal moom la yëkkati ndege ni démb Ousmane Sonko dellu siwaat rek ci àtteem ak Adji Sarr jàpp na ni ab complot kott la tegat na nag baaraamu tuuma ci kaw ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo amal la bileek atte jàpp rek ne li xew nag ci senegal ab gàcce kott la Le Quotidien Le Quotidien ci jolloole nee na nag Sonko xam na matam bu mujj buñ koy xayma nag euh, woote na ab caravane boo xamante ne ni moo ngi ko duppee caravane de la liberté xam ne nag ni jamono ji dootuñu mayee dara dootuñu nangu tous njiitum réew mi euh, Macky Sall nag la ñu fas yéene janool Ousmane Sonko di njiital Pastef nag mu ngi woo ndaw yi ci fitna loole euh, le quotidien yi ni moom moo ko xëy ne fàng ci xëtam bu njëkk le témoin yi ni kaay ne na buñ koy xayma nag ci ëllëgu ko procès bile Ousmane Sonko waxtaane na rek dellu sem ci Dakar woote ab caravane national daal la loolee la daal di mën ko gis tukkale tam waa yéenikaay Les Échos ci na nag jamono ji Ousmane Sonko génn na lëlëm ba noppi rek daal di fësal seenu ba xeex jëm ci njiitu réew bi Macky Sall waa Dakar nag amoon nañu fit lool waaye jamono jooju dafa naqari woon rek ngir ñu jànnoo ak ñi nga xamante ne ni moom la doon xeexal moo taxoon daal mu daal di delluwaat foofee mu nekkoon ci diwaanu ko Ziguinchor ngir xoolaat ay pexeem jamono ji Macky Sall dafay dellu ginnaaw la mu xam ne ndege ni démb la gën a yomb ci moom daal ak procureur am moom mooy ñu dellum dem ca kaso moo gën sax jamono ji ñu euh, dugal Ousmane Sonko ci bi dekk kaso bokk na ca la mu euh, xam ne enquête yi ni ji euh, la mu fësal tey ji bokk na ci daal la fi mu nekk ñu ngi ci teg ab njort Basirou Bey jàpp ni jamono ji yoon bi Ousmane Sonko jël nag mi ngi wéy rek di gën a tar ci moom njiital Pastef jamono ji sax ma li ma kii ci maître Wade nee na nag procès politique kenn du ko gagné ci wàllu tribunal ba Ousmane Sonko noppi rek di xam ne ne moom mu ngi ñëw fii ci biir Dakar ngir wéyal la tribune yéen moom ne na bu ñu koy xayma nag Ousmane Sonko dafay dellu si rek ngir jëlee fi njiitu réew mi Macky Sall combat final nag boo xamante ne ni dañu ko amalee fii ci biir capitale bi amul benn début nag ci li nga xamante ne ni ay firnde la ñeel wàllu càkkuteef bi nga xam ne daal ñu ngi ko ko doon toppee Adji Sarr dana fay ba fa yëf yem rek li nga xamante ni moom mooy complot ba mu tàmbali wàllu ka euh, foncier coowal suuf ca biir Guédiawaye of nag moom mu nga cay sóob loxoom jamono ji enquêteur anticorruption nag jamono ji ñu ngi déglu rek bépp collectif boo xam ne euh, tonku nga ci bokk na ci nag coow yu bëri yoo xamante ni daal la tribune yéenekaay xëy na euh, ne ko fàng ci xëtam bu njëkk direct news yéenekaay moom dafay des ak ñun jamono ji ci mbiru ko Ousmane Sonko jàppale ni nag fi ñu toll ni Ousmane Sonko noppi na rek ngir daal di yëgali li nga xam ne daal moom la sumb asu final la nag wala njeextalu ko projet ba direct news yéenekaay samp na ci ab laaj la mu xam ne daal jamono ji ah, moom mooy mu daal la dugal kartam gu mujjee ci li nga xam ne ah, moom mooy xeexam bile daan dox nag digganteem ak force de sécurité ak défense yi nga xamante ne ni ñoom tam takku nañ ba ah, dëgër wutali groupe e ak bés bi le jour mi nga xam ne nag dellu si na ci fitna gi ci lan làngu ko politique ga juin daal ma ngay diir mbagg weeru ko mai loolee la ko mën a xayma tey ji manifestation ya ca bëri na ñaar fukki fan ak juróom benn Yewwi Askan Wi las 24 ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci Macky pour 2024 ñetti fan ci weeru juin ñu jeexaan itam daan yi nga xam ne ñu tukkee ci procès suite bote benn fan ci weeru juin le peuple yéen kaay moom jamono ji la mu fësal bokk na ci rek li nga xam moom moo jëm nag ci mbiru ko ji Mati Fall ci coowal la suite bote mile ji njeexital la la ñuy waxtaanee bu ko soo yéenekaay bi tam xayma li nga xam ne ah, moom mooy dialogue national wàllug hydrocarbure njàngale mu kawe mi jokk na ci nag dogal yi nga xamante ne ni ah, moom la njiitu réew Macky jël ci loolee di conseil des ah, ministres tii di tàggat yaram yu sport yéenekaay lañ ci àndal dellu si wat ci AS Douanes mi nga xamante ne ni wutali na nag final bu basketball Africa League muy gule tekk ci taarixam coach Pape Gueye xam ne ni jamono ji nag ña nga xamante ni daal gëmuñ leen woon benn yoon ñoom ñoo taxaw rek jom mi Jean-Jacques Boissy mi démb nag la mu xam le ñoom mooy ma nga doon na joué ak ñi nga xamante ni daal jàpp na ne ay fansam lañ ay sax lii mooy loolu ni kay xëy fa sa tey jii nii. am na solo mbokk yi di leen ñaanal ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. cant ak ngërëm ñeena la Aïcha. merci beaucoup ñu joxante dig daje ba ëllëg incha allah. ci yeneen yéene kaay lay doon. jërëjëf Grégoire Ngom mbokk yi bu ko defee rek ñu daal di wëyal xibaar yi ak li nga xamante ni moo di laa revue web léegi lay doon bu bakk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi ànd ci Kajoor Cissé.